ñetteel nga leen di wax mu rawate ku ñuy wax Muhammad ibnu Abdullah nga xamante ne moom la yàlla booleel falsafa yi ci bi ci gën falsafa bi ci gën mooy falsafatu asamaan te moom moo ñu ko leeral bu ko defee mu taxawal ñi mu gën a fonk lu mu leen di wax leeta bu ci nekk war nañ koy bàyyi xel def ko mu nekk suñu dund yaa ayyuhan naas daf leen ay yéen nit ñi isma'u qawli déglu leen ma bu baax a baax a baax mën naa am duma dajeeg yéen lu ko dooree bi si tey kon nag la wax mooy ñunu nu neen la ñu nu neen la te it ñu nu neen la nañ ko takk ci nite nga xamante ne bu ko bu boo gisee sa mbokk na ko jàppee ne sa mbokk la bul seetati ndax pël la bul seetati ndax mbaa njaago la bul seetati ndax lum do parce que yàlla daf ne yéen ñëpp yéen a ngi jógee ci aadama te ci moom ngeen di delluwaat ku lay jaay taar ku lay jaay taar parce que nit ki boo gisee muy fuuy rek am na lu mu lay jaay benn taar la. xaar ko ci ñetti ñetti fani bàmmeel ku lay jaay taar xaar ko ci ñetti fani bàmmeel ku lay jaay juddu xaar ko ci aadam daa la ko fekk gun gannaaw nag fuuy fuuy nit amul lenn lu tax muy fuuy te fuuy moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam xeex ndax mooy li nga xamante ne mooy teqale nit ñi ba dootu nekk ñunu neen la moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax ndeysaan bi mu ñëwee li arab yi daan réylu yépp mu dem def ko yonent bi du ko yàlla sante na na dajale njub kapp ñii ko yàlla jëkk a booleel ñuy arab yi ñoo ko njëkk a sonal ndax ñoo dañoo rëy jikko yi rëy lañu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag war a yàq loolu bu ko defee nag affaire yi fuuy mu ngi génne seen diggante ma tëjee rek ci lenn wax leen li yonent bi def te muy lu am solo ku ñuy wax bilaal bilaal nga xamante ne moo représenté woon lépp luy africanité li ñuy wax négritude lépp loo xamante ne africain la ca bakkan bu tàppa darbaat ca kawar gu gàtt gaat nga xamante ne ñépp a ko xeeboon bilaal bu taxutoon ak yonent bi dana nekk bilaal ba faw waaye yonent bi bi mu ñëwee ba gis ne fuuy moo tax ñuy xeebaate dafa tànn lu ñuy wax nodd nodd mu jox ko bilaal loolu lu lu li mat di bàyyi xel la yonent bi tàng lu ñuy wax nodd nodd mu jox ko bilaal bu ñëpp toogee ci jàkka jàkka nekk place bi ñu gën a fonk ci liñ gën a fonk muy julli ci niñ ko gën a fonkee muy mbooloo ba ñëpp toog ni mel ni picc moo teg ci seen bopp yi mu ne bilaal jógal ki ñëpp daan xeeb démb mu ne ko jógal ñëpp di ko xool mu ne ko bu dem ci suuf demal ca kaw areex naa bihaa mu ne ko nag ñu entertain entertain ñu bilaal ñëpp ñëpp ñëpp di xool bilaal mu takk turi bilaal ci turam ba tey noddkat yi sax foo xew ñoo la yaay bilaal bi yonent bi alayhi salaatu wa yemu ca mu nañu doon naa dugg àjjana dégg ay jéego ci suma kanam ma laaj ñu ne bilaal la yonent bi alayhi salaatu wa taxaa ne ana wa bilaal man maag bilaal nii lañ àjjana lu loolu lan lay wane am na lu muy wane day wane nag xeebaate amul njëriñ te foo gisee foo gisee ñunu neen la tas rek xeebaatee ko tas te la tax ngay xeeb nit ki boo ko seetee boko sété ci yow mom lañu gëna xép ci yow kon nañ moytu làmmiñ làmmiñ moy li nga xamantene moy waral xalaat bu bon ilayhi yasadu al-kalimu alkalimu tayibu wal amalu saalixu yarfa'u ilayhi yasadu al-kalimu alkalimu tayibu wal amalu saalixu yarfa'u nañ moytu làmmiñ لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك kulluka وللناس ألسن وعينك إن wa لك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينه دفنه nanga moytu sa làmmiñ di ci wax awray jàmbur ndax yow yaa ngi fees dell ak awra nit ñi dañoo fees dell ak ay bët nga bàyyi sa xel foo gisee di yuqóolu da seetul sa bopp foo gisee di yuqóolu da ngaa seetul sa bopp waaye boo seetee sa bopp da nga bàyyi mu ne sa bët lu mu la feeñalal te muy lu ñaaw mu ne na nga wax bët bi na teey ndax man maa ngi fees dell ak lu ñaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ñu defal may te yéene jamono jii ñu toll ñu nu neel la am na njëriñ gis nga ñu ci jamono boo xamantene am na ñu jóg ngir jàmm jeex ci àddina maa ngi leen di tuddee pisophobique minority am na ñu leen di tuddee islamophobia man li ma leen tuddee mooy piisu am na ñoo xamante ne jàmm lañ bañ jàmm fu mu am bëgguñ ko liñ bëgg nag mooy nit ñi fuñ toll am am nekk ci di tojante ay pàqi nit ñi di tojante ay pàqi maanaam fu ay fu jàmm nekk ñu yàq ko te ni ñu koy gën yàqu mooy wuute bi ne seen diggante kii dafa ñuul kii dafa ñaar kii dafa nangam ma leen di sant ñun ñëpp mu rawate suñ mbokki jigéen ñi ñun góor ñi am na yu tuuti yu ñuy def waaye may sant ma maa ngi leen dénk suñ mbokki jigéen ñi suñ yaay yi ak suñu mbokk ak suñu rakk yu jigéen jigéen fu mu baaxee àddina baax moo tax yonent bi alayhi salaam moom la njëkk a defar waaye jigéen yàlla daf koo def muy xool ci small picture maanaam moom ci picc bu ndaw bi lay xool ji góor di xool ci bu mag bi ñuy matalante góor jigéen bu fekkee ne yar nañ ko sa kër gi bu baax a baax lépp dana baax ndax ñoom seen làmmeñ yi danay jafe lool ngir ñu not ko li tax muy jafe ngir ñu not ko yàlla moo leen def ñu mën a seetlu lool lool lool lool fi ne boo jëloon benn classe jigéen ña nekk si góor ñi nekk si nga wax nit na dugg ci classe bi mu dugg génn five secondes boo laajee góor ñi lu mu sol xamuñ ko waaye boo laajee jigéen ñi lu sol xam nañ xam nañ li mu sol xam nañ ka ko ñaw xam nañ li nga xamante ne moo gënoon mbaxane bi bu ko defoon ni mu def nii xam nañ dàll bi ñoom xam nañ loolu bu ko defee ñooñu dañuy mën a seetlu ku mën a seetlu nag lu si bëri danay danay danay bëri wax moo tax ñu leen di sant bii su ngeen ko mënee takk rek jamono bi yépp dana baax yàlla defal leen yàlla takk ñu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon am na ñoo xamante ne yàq jàmm moo ci lañ jóg te fi mu nekk nii ci àddina twenty first century boobu moo tax ñu war a nekk ñu neen la bu baax a baax ñaareel ñi nga xamante ne ñooy tas ñooy tasaare ay ci àddina ay day wàlle bu baax a baax a baax gis nañ ne fii ci Central Afrique gis nañ dafay xew ñu ñuy rey ay nit gis nañ fii ci Mali ñuy ñëw nangam nangam te ay day wàlle foo gis safara tàkk xamal ne fi ne agsi na ci yow kon nañ bàyyi suñu xel bu baax a baax su ñooñu ñetteel ba mooy dañoo nekk ci àddina boo xamante ne léegi ñu ngi koy tuddee maanaam dëkk bu ndaw bi dëkk bu ndaw bi nag gannaaw dëkk bu ndaw la boo tisoolee Amérique ñi nekk Gambie yëg ko boo sëqëree China ña nekk Éthiopie di ko yëg kon lépp loo xamante ne yaa ngi koy def te daa daanoo mën a nëbbu tey nga gën a mën a ñàkk nëbbu ويكت با دافا وخني ومهما ومهما يكون ان امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم نيت بو امي جيكو باي بو امي جيكو بو بون بو ياكار كين خموكو موني داغي داغي دم ëlëk sa marché ba fekk ñu lay jaay kon ngir yàlla nañ fexe jikko yi nga xamante ne moom lañ am ñu jéem takk dugal ci buum jikko yu bon yi jéem ko takk dugal ci buum ndax jikko ju bon boo ko amee sa marché ba nga koy fekk jikko ju baaxit boo ko amee sa marché ba nga koy fekk ndax dañoo wax ne égyptien yi dañoo wax ne i'malil xayra warmil bahar maanaam na nga def lu baax sànni ko ci géej gi kon ñu nu neen la ñu leen di sant bu baax te di leen gërëm li nga xamante ne moo leen takk ñu ñaan yàlla mu takk leen ba faw takk ñoo ñeen ba faw takk googu nag du a manam nu ñuy toléré manam nga dem ba faté ak wouté ki nga wouté du ne rek nga muñ ki nga woutel waaye nga faté da nga wouté ak mom ni ngay faté da nga wouté ak mom nga jikkowoo ko ni nga koy jikkowee moy nga xamantene ne bi fofu lay nek xalaat bi la koy lal moy baat bu baax kon nañu jëf lanté di jox di jox lanté ay baat yu baax bu la nit waxé ci keneen lu bon fexel ngir yalla ba bul ba bul komen am na ñoo ci ñun da ngay xam ci ki lu baax xam ci mom lu baax xam ci mom lu bon boo xamee ci nit lu baax xam ci moom lu baax bu bon ngir yàlla nëbbal ko lu bonam bu nit ñëwee di la wax noppil boo boo noppee dana am gàcce boo ko defee foofu lay yem waaye bu fekkee ne nit ñëw na di la wax ci nit lu bon te yow xam nga ci moom lu baax wax ko yow lu baax wax ko moom lu baax wala nga ne ko ngir yàlla demal sa yoon waaye lu gën a jafe mooy nit di la wax ci nit nga xam sa moom safaan ba nga napp nga nëpp sa làmmiñ loolu lu lu lu lu jafe la waaye loolu lañu yàlla sant yàlla itam wax nañu ne yowmal qiyaam koo ci gis sa safara lu ci bari làmmiñ ma ko fa kon ñu ngi sant sëñ Babacar Thiam di sant képp koo xamante ne ah, yaa ngi fi di déglu wa ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi itam sa taxawaay am na solo ndax sa dégg rafet na macha allah tey na koy joxe. tubarikal mbokk yi dafa mel ni li mu wax fii doy na am na solo rek ñu wane ne naka mag ñi daan ko waxee waxtu bu nekk jàmm daal dafa am solo ba ku ne war cee taxaw te nag na mu amee solo noonu la firé nañu moytu ay ndax ne nañu ay li feeg yaa ngi koy mu muccagoo ci xoolal rek li xew Nigeria ñaari semaine a ngi nii ak lu ko ëpp lu war a mat ñaari téeméer